mirina asta njaane it ak ñëwdu ak longoor gële ak kër maa jóob ak lappe it bul fàttañ cill ak daramaan sëñ moor kebe mu kebe meer kër moo surang gële ca ndar sëñ baara jaaneeg sëñ omar ñii sëñ bi ràññi woon na leen sagata it daana fa dem sayxu omar saar ak rakam ak sayxu mbay njaay xaritam waa kër ma ñaaw ñépp ko miin te daana dem gana ji njaañ sëñ Babacar ma sant jaañ ñu naa ko mbay jaañ nag bu jaañ dem daaru muxti yooni yoon kër baay ma yaasin sekk it kawlax bu leen ko fàtte it ak tayba ak tiib nasur it fu ne la sëñ bile demoon amul kajoor fu mu demul amul bawol fu mu demul amul ci saalum fu mu demul moom daana dem ba mbir kilaan aqi bi ndéef yi moom la xam ko ne da koo jox matal na léppam soog a dem daanaka ab la woon di jëf te yàlla rekk tax seex ji li moom ci lii la sax lii mu ji woon yàlla na sax caa njabootam neel amiin njaboot gi yàlla nañ ko añe ñoom ñépp añ bu kenn diñe te nag bu leen kenn gañe nañ cëru fii cëru feneen taawam bu doylu woon balool te gore woon te fonki te dëddu woon lool yal na ko leewu jox yonen ñëw na ba dem kenn yebbu ko murit bu ne gërëm na ko maamam la gëm te sopp ko musul di tewoo leneen muhammadul mahmud turam sëñ mbàkke moo tuddu turam lii tax mu sax ci luñ gërëm sàmmal na mbër yi fi yàlla na yàlla wuutu ko ca ak njabootam sàmm ko balim ji woon ñu ko aar leen ci dog yi ak yeneen yàlla na yàlla wuutu ko ca ak njabootam sàmm balim ji woon ñu góobi ko aar leen ci ndog yi ak yeneen te aarakam sayxul xadiim mi wuutu baayam ak magam yàlla na sut aw fan magam yàlla na matal lañ woon te aar rek am sayxul mi wutu ak magam yàlla na sut aw fan magam yàlla na matal lañ yéene woon te nii mu jàppee xaritam Cheikh Moustapha muy jëwriñam fa mbir yi teg ko ci loxoom yàlla na yàlla sàmm leen sëñ de nii nga def ni la Cheikh Moustapha yewit ni gopp kee ëllër bala ku yewu nag jàppale leen kenn mënu leen ngir buur bi moo leen jaxase seen buumi xol la laxase yéen noon yi daw leen tarsu ngeen xarit bu sëñ seex masaam seex mustapha boobee la am bokk xarit ak lu ñu gëm mos réeroo benn yoon bis ba sëriñ sooy bu ñëw te soow ma tuuru ñépp daw boobee ba tey nag lu fi xew xam naa ko lépp mën la miin sëñ seex defaat na la ko war yaatal na rakkam yépp far ku ne mu jox la lay sa cër sa baay de bég na yooni yoon Seex Fallu mii la def imaam ni ko wéyal neel ca kanam lépp lu jëm ci diine tam sëñ Fallu yaa ci ilimaan nee na la sëñ Moodu defoon duma ko soppi benn yoon màggal gi nii mu ci defoon duma ci soppi ak karan sëñ Siidi mii laa jox ndigal màggal gi lee lu koy jagal noo ci xalaat rekk defal ñépp a rafet lu saw doxiin Seex Bamba tànn Mustapha muy jëwriñam mu doy ko fa def sayxu fallu kilifa lum bëgg woo borom gaawaan sayxul xadiim na ca kanam Seex Mustapha di jëwriñam Seex Fallu nekk seen imaam ndax gaa nag lii safu leen nee leen ma waaw waaw aha kay Seex sa noon yëpp nga rey képp ku doon raasaatu ay na lagg seet garab geneen saytaane yàlla nañu ko um ci sunu kër gii nag mu dem ngir yàq ànda di àndam ànda di seenub ànd yéen ku leen xamoon kër seex aboo yéen benn ngeen ñëpp a juboo du ngeen waranteeka nëbboo mat naa ci seere man lamin jullil ci xayril xaalamin noppal xalima gi lamin te ñaan ci rabbil xaalamin mu aar ma ilimaan jullil ci xayril xaalamin noppal xalima gi lamin te ñaan ci rabbil alamin mu aar ma aar kër ilimaan julil ci xayril alamin noppal xalima gi lamin te ñaan ci rabbil alamin mu aar ma aar kër ilimaan subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin